yi jàng ci. tout à fait. ci fecc ci ba doyal. ok tout à fait. y plus du fecc mm-hmm. que contenu mu buggoon nga wax ñu ci sa gis-gis. waaw xam nga d'abord da nga ne bu njëkkoon xam nga tey man yaakaar naa ne tarbiya naa Thione Seck mm-hmm. rek nekk naa des années. Mm-hmm. woyuma parce que. dañ ne woon mënumaa way mm. parce que boobu temps ñu ngi may forger ñu ngi may liggéey pendant des années mm. léegi tey xale bu fi jóg di way nga ne ko kaay topp sama ginnaaw deux ans mu ne la yàlla tere wallaay wallaay te nag loo doonul taalibeem doon sa doon sëriñam mm-hmm. te bari na ñoo xam ne dañu yàkkamti dañu yàkkamti torop mm. te affaire bi warul nekk noonu am na loo xam ne d'accord yàlla mooy def euh, li ko neex ci jaam bi mu nekk don mais am na it loo xam ne ay technique yoo xam ne da nga ko war a jàng da nga ko war a jàng mm. xam nga nga nekk ci ginnaaw waykat bu tol ni Thione Seck pendant des années et des années mm. et pourtant man je me disais que ne mën naa way mu ne man non mënaguloo mm. toog di jàng di jàng di jàng pendant des années mm-hmm. di tëgg sabar mm-hmm. xam nga mm-hmm. di awu benn morso ma penda ba benn bis nag mu ne ma acc acca léegi nag wayal xam nga loolu dafa am solo. trop léegi jamono ji loolu amatul. loolu moo waral ba li ngay wax ni yëpp. di am parce que léegi amatuñu temps. parce que affaire bi dafa gaaw ba nga xam ne da ngay yor sa benn tuuti tuuti weccet rek dem gis benn waay. mu defal la benn single. nga génne ko def yóbbu ci ci télévision bi te léegi nekk star Sénégal dafa yomb. Mm-hmm. xam nga nit ñi commencé jël rek sa waa kër jël. dëgg la xam nga tu vois ñuy commencé teg télé bi nga nekk star. te ñun nag wax dëgg yàlla boobu temps loolu amul. Mm, dëgg la man mm. boobu temps mbëggeelu musique moom moo gënoon euh, soxal ñi nga xamante ni ñooy waykat gi. ak jàng ko ak jàng ko mm. ak jàng ko parce que doon dëgg la. mais loo doon donn doon jàng ko ndax am na loo xam ne danga koy jàng alaakulli kon macha allah leer na nañ c'est des conseils pour la jeunesse. Euh, la preuve man bi may nekk euh, Ramadan. lépp lu coon way. ak lu mu woyagul. boo duggee boo xoolul man su ma taxawee di koy da naan moom moo koy way ah. macha allah am na solo ba tey ñu dellu si ci li nga xamante ni mooy événement bi. Mm-hmm. alors euh, bu njëkk ba ñi la doon seetaan bokkoon ci ñi ñëw ci say soirée. Mm-hmm. jamono ji yàlla daa dogal ni ñoom ñëpp ci euh, xëy na genn wàll gi yëpp sax nag ci nguur gi lañ nekk. est-ce que pare nga pour jouer waat son année ay it année 2000 euh, yooyu noonu nga mm. doon. ak waaw dina am nag euh, yu ma ci yu ma ci boole mën mënul ñàkk parce que comme ni ma la ko xee léegi am na ñoo xam ne mënatuñu ñëw boîte de nuit mm-hmm. donc lu mel ni Grand Théâtre rek lañ lañ mën ñëw mm-hmm. donc su boobaa dinaa leen euh, defal loo xam ne ay fàttali lay doon maanaam nay fàttali yëf yi ci vingt ans yi li nga mës a wëy tey boo ñuy yow lan ma la neex lan moo ma neex c'est-à-dire tey morceau bi nga xamante ne ndax lu ñuy wax man am na bi ma neex ci yow paasan am na bu ko neex ci yow. waaye yow bi nga xamante ne bi nga koy bind. nga mm. wax ñu peut-être benn expérience benn anecdote mm. woy boo xamante ne marqué na la ci bind bi wala. Euh, morceau bi ma woy coon. Mm. parce que bi ma koy woy moom nekk fa woon ñëwul woon répétition. donc man ak musiciens yi rek ñoo ko répété woon temps boobu ñoo ngi joué cosaan répété naa morceau bi ba mu pare. moom yëgu ko ñëw soirée moom def bu ñu daan joué nag man maa def les premières parties. su may commencé way moom dafay ñëw di toog ci table bi. di régler. donc léegi nag bi may woy nag ba ñëw nag ci morceau boobu nag. ah il était ému. dafa mujj génn. sa yaram a ngi daw loolu moom neex na ma. est-ce que mën nga ñu tuuti ci morceau boobu juste peut-être. nit ñaan yàlla na gën ci moom wërsëg bi nga ñaan na doon sa muur njariñ loo fekkee bala nga naan naam teew jëlal sama mag ji ma yàlla booleel du ma xëy duma werante ak moom ginnaaw ndey ak baay moo gën ci man may koy tarbiyu sàkku ñaan jëlal ak la ca des. Ah, macha allah. cet amour inconditionnel qui se lie à travers vraiment euh, mm. Mm. ce regard à mm. travers euh, tes comportements. man dama leen di ñaan rek yàlla musal leen ci seytaane. amiin amiin parce que moi je sais que. nit ku ko bëgg nga ku ko fonk nga te moom bu jàkkaarloowee ak mm-hmm. yow mm-hmm. Euh, gis ta façon de faire xam na ni nit du ko gën a bëgg comme yow mm-hmm. dëgg la xam na loolu ngor dafay am solo ci diggante ki nga xamante ni moo la jàngal ndax kooku amoo fayam dafa mel ni taxkal la te bu ñu demee tey bay fêté euh, vingt ans ak sa vingt ak le groupe euh, le ngéwél moom bu la defaruloon xëy na tamit doo fa yegg <laughs> dëgg la <laughs> voilà loolu donc am na solo ñu delloo ko njukkal moom mm. Papa Thione mais je sens tellement tellement d'amour tellement de soumission mhm. d'acceptation ci li nga xamante ni moom nga fi euh, jot a may tuuti ni et je sens surtout que mhm. pare nga pour événement bi eh, ah mais pare wu ma ndànk sax incha allah dégg nga ñaan mooy yàlla ñu ak fekke ak tal amiin kenn bañ a manqué ci incha allah rabbi bu soobaa su boobaa nañu xam ndax pare naa wala pare wu ma mhm. incha allah waaw Ndiaye waaw mais euh, te ak Guissé dañoo gis ne dañoo ne da dafa changé da nga changé. Mhm. changé quoi de musicien. non <laughs> enfin ah, Papis Konaté mu ngi joué ci groupe bi. Mhm. mu ngi nekk ak ñun lépp tout liggéey xam nga rek bon. Papis Konaté fii membre membre fondateur du Ngéwél gi. Mhm. <laughs> attention euh, il fut membre fondateur du du gi. parce que Ngéwél gi euh, je crois que li mu li mu Euh, génération génération consciente un an. y' a y' a y' a eu ngéwal en deux mille quatre vingt dix neuf deux mille. waaw y' a eu en deux mille deux. tout à fait voilà. donc, 2002 donc ci ci ci ci côté yooyu donc euh, mu ngi joué ak génération consciente en en 2004 donc okay, bien avant ah, okay, ça veut dire que Papis ak ak Assane Ndiaye c'est tout au début waaw yàgg na donc moom il fut ma ma maam fondateur léegi nag mu ngi ci waaw ah, Souleymane Diop waaw tout à fait waaw d'accord hmm. mais ñoom euh, aussi nee nañu beneen Assane mooy ñëw Assane bu bees tàq mooy ñëw ah waaw incha allah. <laughs> maanaam maanaam maanaam Assane bu ñu daaj ci paquet. waaw incha allah en tout cas daal ah, de mon côté j'essaie tout réunir incha allah. ba nga xam ne rek su bis baa ku fa taxaw. Euh, sa rongoñ na tuuru. ndax kontaan. kon ñu indaale mouchoir yu bëri yu bëri. <laughs> mais man man man man man Pa ku mu fa dëgg ne ma ma ah, ah waaw waaw ah, ah. ah mais bien sûr. ah waaw bien sûr. ci kaw ci kaw lay nekk de Subatel. l'équipe de Subatel faaw mu dem ci. dëgg dëgg waaw. nga hmm? xam ne nag su weesoo nag ñu ñëwaat toogaat fii nag. est-ce ñu def Subatel gi foofu sax nag Pa il y a des événements qui méritent. Mm -hmm. le déplacement. le déplacement et, et, et pourquoi pas il y a l'esplanade du Grand Théâtre. Mm -hmm. on fait Subatel là-bas. Mm-hmm. on passe la journée. et mm -hmm. on prépare l'événement. Euh, on fait les productions là bu ñu paree bu ñu paree bu jeexee sax mat laa fanaan. <laughs> waaw incha moom jàngal na ma moo bu bees ne ne mband. Mm. mband waaw waaw waaw c'est mon problème c'est son problème kon foofu du nelaw. ndax mm-hmm. <laughs> daf ko nar a fecc. ñu di fàttali ni rek ban numéro la bu fekkee nit ki ngi toog di ñu setaan mm-hmm. soxla woon tey mm. ni mooy jënd mm. am na ñu koy jaay au 77 444 33 69 444 33 69 ak 77 513 16 76 mais aussi euh, boo duggee ci kii bi aussi am na ay vente en ligne mm-hmm. internet internet bi waaw 16 73. 16 73 76 waaw excuse-moi 76 16 76. donc ñooñu moom et puis dañuy livrer à à domicile aussi. ah d'accord waaw. ah c'est mm-hmm. super. ah ñoo ngi topp technologie bi tamit ci événement yi. Ah, ñu ko koy jaay ci. Euh, Euh, yenn euh, boutique yi bëgguma wax turu kenn. <laughs> mooy loolu. est-ce que du loolu lañ ñoom Papis Konaté di junj ni que Assane bu bees sax mooy ñëw. Papis daal di na nekk waaw man nag xam nga Papis Niang moom moom lépp lu jëm ci communication ci Assane Ndiaye moom la. moom moo koy album bi rek sax ko dégloo. Ah. xam na ne Assane bu bees a ñëw. Mm-hmm. Ah, album walaay dëgg la kon de yow kon de ko. Ah. déglu xam ne Assane bu bees la. effectivement mm. effectivement ñu ci la jaajëfal doomu Jolof waay. bu Thiombane mm. doomu Jolof. Euh, basé à Paris. waaw euh, euh, réalisé am na man boo xam dama koy fil sama oto. Mm. waaw. jug leen waax wax jot na ah waaw waaw ñu war a wax wax na waaw dëgg la mooy mosu boobu ma wax rek. Uh-huh. waaw j'adore cette chanson ñu ji la bàyyi rek nga tàggatoo ak ñi nga xamante ne ñooy téléspectateur suba teel. waaw xanaa di leen gërëmaat bu baax di gërëm borom kër gi Bougane di ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudd ak wér. mention spéciale nag ak a sama doom moom i. macha allah moom tamit mu ngi topp ci ci affaire yi eh, di ci def liggéey bu rafet en tout cas daal Sen TV chapeau yàlla na yàlla may yéen ñëpp. fan bu gudd may leen wér. allahumma merci beaucoup allahumma amiin ñu bokk ko ma di leen jaajëfal yéen it. merci beaucoup Asma c'est un demain. incha allah. Amiko à incha allah. alors ci noonu laa leen di jaajëf yéen jaajëfal yéen nit. Euh, yéen téléspectateurs yi internautes tamit ñoo ngi gis seen ay message ak seen ay participation euh, te ñu leen benn yoon te ñu ngi rafetlu seen teewaay ak seen ak seen taxaw ci li nga xamante ne mooy programme bu bees bi di Subatel di seen magazine d'info matinal je vous dis à demain pour euh, bah d'autres infos